suñu réew mii di Sénégal li ñu naan sutura tumurànke na fi lool te mbokk yi suñ boroom de moo ñu njëkk suturaal ndax suñu bëggul woon suturaal su ko neexee dana fexe ba bàkkaar am xet te kon bu boobaa di nga gis koo xam ne kenn du bëgg a toog ak moom ndax xet bu bon suñu réew mii li fi xew léegi mooy waaye xamul nit ñi lu bon tasaare ko ci réseaux sociaux yi yow mi di jël ay vidéo wala photo wala audio diko ko tasaare ci réseaux sociaux yi xana da nga déggul li yàlla wax suñ borom neena ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره ñi nga xam ne dañuy bëgg di tasaare musiba yi ak ñaawteef mi ci kaw suuf pour ñépp xam ko ba ñépp dégg ko kooku dina am mbugalu àdduna ak alaaxira te mbokk yi su mboroom bi mu ñu sàkkee ba pare dafa jël mbalaanu sutura mu ñu ko ngir nëbbal ñu suñuy ayib te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dafa waxoon mbalaanu sutura kuko ko suñ borom mur lo tëre ji tëre ji say bu du suuf kon bokki nan sutural suñ bopp suñ bëggee yàlla suturaal ñu wasalaamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf soxna may ñang ñoo ngi lay sant bu baax ci discours bi am solo bi nga xam ne yëkkati nga ko te yaakaar naa ne yamul lekk ci imaam yi ci ñun ñëpp ñoo ci war a am lu jànge kon ñoo ngi lay sant ci taxawaay bi di sant bu baax it commission culturelle bi ci seen liggéey ndax yaakaar naa ñoom ñoo mën a waajal gone yi bañ ñame taxaw fi di yëkëti loom solo li kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm tay ñaan seen taxawaay yàlla na kon su ko defee rek comme niñ ko waxe woon dañuy woo ki nga xam ne moom lañ fas yéene di bàyyi am di Moustapha Seye njukkal yi nga xam ne soppay Serigne Salif Mbacke yëkkati nañ ko ànd ko commission culturelle bi yëpp fas yéene jël njukkal yi jébbal ko ko di ci wax ne sëriñ Mademba Diaw ak sëriñ Moustapha Diop ñoo fas yéene jox njukkal imam kon ñoo ngi woo sëñ imam mu yegg si mën a ñëw jël njukkal lii Wow, Bismillah. Wow. kon ñu téwlu rek ta joxe njukkal yi jiital ci kamelul alquran bi nga xamné serigne mustapha Diop jankatu xasida moko ko jox and ko serigne Ma Demba jaw nam ko nangul kon bismillah serigne mustapha ñu jitt tek ci jallabe bi ak kol gi bok ci njukkal nga xamné moom lañ jébbal ilimaan ak parasol